mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit ahmad Samb ñu fas yéene rek continuer tey waxtaan ci euh, suñu maam Ismail alayhi salaam bi mu génnee àdduna lan moo xew ci gannaawam ak itam euh, xéewal gu rëy googu nga xam ne yàlla defal na ko. defal na ko ko te moo di xéewalu zam-zam di teen bu rëy boobu mu mel ni suñu maam Ismaayil alayhi salaam e bi nga xamante ni génn na àdduna wax nañu ne doomam ju ñuy wax naabit ñoo ko donn naabit momu gannaaw bi fi jógee ku wax mudad ibn amr al jurhumi mom moko don melni kon suñu mam ismail domami tok toog nanu diir bu yagg yor kilifte fu makka yilif kaaba ga ndax kaaba ga suñu maam Ibrahima moo ko tabax Ismaayila doon ko jàppale yilif itam sëm ndax ci barke suñu maam Ismaayil la ko yàlla feeñale te daanaka la rëyal màkk ba mu nekk barab bu am barke kaaba ga la ak zamzam ci jamono booba motax ci الحاج ماليسي وقت شي خلاص الذهب رضي الله عنه ني وحاذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحم مملني مضات ميغا خامتني مي بوك جرهم لخ Ismail, mën nañu wax ne doomam yépp ci giir jurhum lañu bokk ndax soxna su baax soosu mu mujjoon denc te bàyyam wax ko ne ko nang ci jàpp jigéen ju am barke la mu ngi bokk ci jurhum moo mu ne kon gannaaw bi nga xamante ni eh, yàlla dogal na nabit faatu wax nañ ne xilaafa ga nag dellu na ci loxo ngir jurhub waaye makka dafa nekk dëkk bu sell nekk dëkk bu tedd nekk dëkk bu ñu ormaan te itam képp koo xamante ni fa ak njub nekké wulo fa ak mbax yalla dana xey génne la dëkk boobu gir jurbum ñoom ñoo fa nekkon waaye dañu démon ba beew ku dugg ci makka di di ñu nangu sa alal togn la te do ci man dara adiyé ju ñu indi ci kaaba gi ñu lekk ko ñu dem a dem a dem ba euh, la xamewoon seeni baay ak seeni maam mbaax gañ leen xamewoon woon ak nañu géré woon màkk ci jikko yu rafet ni ñu téye woon màkk tabaarakallaahu ci doxalin wu jub ñoom bi ñu ñëwee dañu topp jakaay bi topp xaalis bi topp bànneex bi dema dema dema dem ba wàcc seen ànd wax nañ ni yàlla na xiir ci ñoom beneen giir gu ñuy wax giir xudaa ndax dañu wax ni giir gu ñuy tuddee banu bakru bnu abdu manaat bnu kinaana ak giir gu ñuy tuddee xubshaanu bnu xubshaan nga xam ne ñoom ñu ngi bokk ci giir xuzaa ñoom nag ñoo kompaloo giir xubsaan ñoo kont kompaloo ak banu bakr ibnu abdu manaat ibnu kinaana daa di dal nag ci kaw giir jurhum xeex ak ñoom rey leen génne leen dëkk boobu waaye wax na ni itam yàlla Momo, moo sànni ci sen ko nattu bu doy war te modi lu melni ni ay wel ay espèce sax lay yebal ci seni bakkan mu melni ni dafa jaxasoog ngelaw li ñu mu jur ci ñoom febaru bakkan bu doy war ku ñandu rek mu di saxi lolo nak nek maladie di feebar bo xam ray na ci ñoom lu bari am ñu ne déedéet ak mbori la yalla xir ci ñoom seeni bakkan di nacc seen deret di tuuru ba loolu faagaagal na lu bari ci ñoom gis nga saabu ak mooy akuk mbon demee ba siiw ci àdduna bi rek yàlla dana wàccee ay natt rawatina nag rawatina nak yenn barab yi yenn barab yu sell yi yàlla du fa setan ak mbon mu fay siiw waaw moo tax بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان كما جايو جمونو أكبرب كلا بكار دي ري كلا أكتب يالا يتم دي ري كون يالا bari na lu muy setan ci yeneen gox yi bu dee dëkk bu mel ni màkk du ko fa setan mukk dëkk yu sell yi yàlla du maye mukk ni ñi di fa siiwal ak mbon su amee rek mu wàccee nattoom looloo tax mu wàccee nattu bi ci giir jurhum yebal noon yu leen song duma leen lu jiitu muy yebal noon ya yebal na febar bu bon boo xam ne jeexal na li ëpp ci ñoom moo tax góor gi ne waqul waqul xudaacatu baddu makkatan galaban min bacdi tasliiti naxfin fi unufihimi waaw moo tax mu ne waqul na nga wax ne xudaacatu giir xudaaca te moo di xubsaan ñoom bazzu nangu nanu makkata makka galaban cig noteel من بعد تسليط النغفين تيغناو خيرتل جو يالا خيرتل اي ويل اي اس بي اي وير اي صح يو خامني اي ميكروبلن يوبون يو خامني دي دوغ سي سن بكاني من, من بعد تصليت الناغفين في انوفهم موتاخ يالا توغال غير غوغو yàlla jëlee na leen fa indi na ñeneen ñu bees ñoo xam ne taxawu neen màkk ndeke waa jooju ñuy wax amr ba ñu ko génnee màkk te fekk boobu moo ko yilif ba muy dem dafa añaane giir xuzaa teen bu rëy boobu ñuy wax samsam mu daal koy sakk waaye nag daf ko sakkee alal ju am valeur ndax ay kéwéli or ak jaasi matériel yu am solo la sakke teen ba alal ja nekkoon ca Kaaba ga nga xam ni valeur bu am solo la ci xaalis ci tabarkàlla alal moom la jël def ko ca teen ba léegi sakk na teen ba suul na alal jooju nit ñi xamatuñu fan la teen ba nekk alal jooju itam réer na leen mër ba muy jóge ci dëkk ba nag moom amr sadd na ay wayam dégg nga ah, wax li ko naqari daal di dem waaye daal yàlla génnee na ko ca dëkk boobu moo tax ñu ne li tax ñu tuddee bàkka léeg-léeg nga dégg ñu ne màkkata léeg-léeg itam nga dégg ñu ne bàkkata lu waral bàkka lu tax ñu koy bind ñu koy bind bil baa i mu ne innaha sumiyat bi bàkka illa annaha tabukku acnaaqa aljabaabira ida axdathu fiha shay'a ñu ne li tax ñu tuddee ko bàkka màkka li tax ñu tuddee ko bàkkata moo di ni say say bu mësa yilif makka di fa defuk mbon nee dëkk ba mooy dagg sa loos mooy dagg sa baat nga al ko toskare moo tax ba nga xamante jir jur kum dem neen ba namm faa feeñaluk mbon yàlla yebal na ci ñoom feebar boobu yebal na itam ci ñoom noon yu xeex ak ñoom ray leen génne leen kon soo gisee ñu tuddee ko bakkata ndax dëkk bi ci boppam mooy défendre boppam ci kàttanu yàlla moo tax boo jàngee histoire abraha keroog ba mu gisee nit ñi di jóge ci gox bu ne di aji si mag te tax leen a jóg xol ba daf ca bon lool mu ne makka dal yeyowuñu nit ñi di jóge gox bu ne di fa dem di fa aji ji yeyul ci makka ndax duñu borom alal duñu nit ñu am maana te boobu abraha mu ngi ci àdduna ju jag alal ju bari nguur gu yaatu mu di tabax ci dëkk bu ñuy wax sanaa benn église bu rafet def ci or yu yéeme orne ko ba nitu àdduna ku ne boo ko rombee sa xol dana jëng jëm ci église boobu ak na mu rafet mu def ko woo nit ñi ne leen na nuy ñëw di aj si ci église boobu ndax moo dax kaaba ga waaye booba xamul ne mbiru yàlla mu ëpp doole mbiru àdduna ay oraki jamaaki yenn luxe yi kooku mbiru àdduna la mbiru yàlla nag kooku xol lay jàpp mbiru zahir la yàlla dogal nit ñi di romb église am boobu di aji màkk nañ ko daan defe amul kenn ku jàdd ca kër abraha ci église am boobu dégg nga mu gis ne ñépp daal dëtmal nañu fale faale wuñu li mu def ak lam ca dépensé ci alal yépp loolu def ci moom ñu gi gi xol mu ne nag fokk mu màbb kaaba ga loolu juróon na histoire bu rëy ndax dafa cokkaas lu jiitu muy dugg si ca kaaba ga dafa cokkaas la mu def moo di ne dafa yebal ay soldaaram ne leen dem leen makka jur gu fa nekk da ngeen ko nangu indil ma ah soldari yi itam daal di ñëw bu ñu ñëwee jur gañ fa gis ñu nangu ko daal di koy indi ba ñu ko indee ah loolu di coow lu rëy mag ñi dajaloo dem ci abdul muttalib neko, ko demal nga nangu ji sa alal ndax yaay buuru màkk te ab ga nangu na sa alal te dégg nanu itam ne dana màbb si kaaba gi waaye abdul muttalib daal di jóg jóg bu jekk daldi dem seti abraha bi mu ñëwee di waxtaan ak mom ne ko lima bëgg dal modi nga dello ma samay gëléem abraha ne ko waaw yow mëno wax ci li gëna fort li nga xamanteni mo gëna reuy nar ko def te modi ne gi ma nara a ci kaaba gi te sen nekk ci ngay nga may wax mbiru ay gëléem ak alal yu ñak fay kéro abdul mutalib daf ko wax wax bu am solo daf ni neej bi am na boroom jëm ci mom borom néeg bi dana wax ak yow man nak samay gëléem mako mom kon jox ma samay bi nak mu ngi nonu amna borom bu koy aar amna borom bu koy wattu waye nit ku nara a dañ ne nit ku rep ak ku bëgg a toxu kenn mënul ci ñoom dara booba abraha rep na mu ne moom fokk mu jóg rek dem màbb ji kaaba ga waaye defe naa ne mbokk yi keroog ba mu jógee moom abraha pour ji kaaba gi jëlee na fa toroxte gu rëy ndax yàlla yebal na ay njanaaw mu di picc yu ndaw ñoo ko toroxal booba de waa màkk ñoom dañoo lem seeni loxo toog rek di seetaan xam ne dëkk bi am na borom bu koy aar kon ba tey nga gis ne tur biñ ko tuddee bàkkata ba tey mu ngom saay-saay bu songu màkk bëgg toroxal dëkk ba wala nga fay defuk mbon yàlla mi nga xam ne mooy wattu dëkk ba mooy dal ci sa kaw loolu mooy sababu ñu tuddee ko bakkata mu mel ni histoire abraha boobu insha allah danañ ci dikk waaye dañ ci dugg noonu rek pour wane ne ni ñu tuddee màkka bàkkata lële misaal la buy wane ne dëkk la bu yàlla ormal dëkk la bu yàlla di wattul boppam kon ngir jurhum seenug mbon a tax yàlla raxas leen ci dëkk boobu ngir xuzaa nag mujj yilif dëkk ba moom la góor gi wax ne waxaada jurhumu bayt allahi raziqina min baadi naabitin il asfa min arrahimi waqul xudaacatu bazu makkatan galaban mu mel ni kon li ñuy déggee foofu moo di ne mag moo di umul qura muy dëkk bi yàlla gën a bëgg ci dëkk yi ndax boo xoolee sax li ilaa fi te moo di suuratu quraysh sécurité bi nga xamante ni ñi dëkke màkk dañ koo am demoon na ba ñi ci nekkoon commerçant suñu masaan a génn di wuti marchandise dëkk bu ñu taxaw danañ leen teral ba nañ fay jóge ndax xam ne rek ñoom ñoo jóge ca barab bu sell ba moo tax yàlla nag ne defal naa leen xéewal gu rëy moo di barkeel naa seen commerce ndax rixlata chitaa'i wa sayf ñaari saison yooyu ñu daan defi seen commerce yépp yàlla barkeel lu ñu wuti ci marchandise bu ñëwee mën nañoo toog ba déwén yàlla nag ne ma joxaat leen itam néeg boo xam ne moom la ñépp di wut jaamukatu yàlla bu ne yaa ngi dàkk néeg bi yéen néeg bi maa ngi ko def ci seen wet ku jóg rek jàkkaarloog moom loolu itam beneen xéewal la yàlla itam def fa barke def fa sutura yàlla nattoowu leen xiif benn yoon ba fa demee da ngay lekk ba na nga fay jóge ataamahum min juuin wa amanahum min xawf itam mooy wane ne dëkk yëpp Makka ci ëpp sécurité loolu génnul ñaanuk suñu maam Ibrahima waaye teen bii di teenu Zamzam ku ñuy wax amru te bokkoon ci jurhum yilifoon makka te bokkoon ci ñi jiite tooñ ga ak mbewte ga keroog bi leen xudaata di génne dafa sakk teen ba ngirub añaan ba mu ko sakkee mbir mi di dem jir xusaa yilif màkk ñu dema dema dem ba bi ñu àggee ci ku ñuy wax xulayl Xulayli mitem itam bi mu yilife mak yalla dogal bobu gir Quraysh ñu doole ndax ñu won e mbolo mo xamanteni dañu jappo deng pour mëna am doole dañu takaliko won def ay pàcc pàcc pàcc sa mbokki gis ngeen ni jamaatu rahma ay mbokk bu ñu rek dañuy daal di am doole ci dëkk bu ñu mënti nekk waaye boo gisee Quraysh gi yonent bi bokk amuñu woon doole ci jamono boobu mooy dañoo tàqali ko woon waaw léeg-léeg sax nga gis ko ñu naan dañoo am tour de famille su ko defee mbokk yi di xamante jàppoo boobu ñuy jàppoon jàppoo dana may tabarkal mbokk yooyu bëgg a juboo nekk benn dañ leen may doole Quraysh nag ñoom amuñu woon tour de famille ndax booba daal jamono tëdd na noo xamante ni ñoom dañoo tàqali ko woon waaye am ko xam ne ci maami yonent bi ku ñuy wax qusay moom daal di jóg ci jógin wu rafet ndax muhammad abdullahi ko jur abdullahi cheybata ko jur cheybata hachima ko jur hachima abdou manaf ko jur abdou manaf qusay ko jur kon mën nañ wax ne moom moo di ñeenteelu maamu sayiduna muhammad xusay mii nag moom moo dem ci xulayl e di ko ñaan soxna ndax amoon na doom bu rafet bu ñuy wax xubbee yàlla dogal nag ci kàttanam ak mbaaxam ak namm-namam mu daal di koy may doomam bi ñuy wax xubbee sëy boobu nag yàlla barkeel ko ñu am ca njaboot doom yépp tabarakallahu yàlla defal leen barke moo tax góor gi ne innal alxudaacata ma zaalu yaluuna ila an jaa qusayun xulaylan xaatiba alkarami xubbee waqad kaana min tazwijiha nicaman abnaa aclayna aqmaaran li qawmihimi mu mel nii loolu jox na xusay doole ju mu mën a organiser woo pour mën a tabarkàlla yilif dëkk bi niki xulayl moom itam bi nga xamante ni yàlla dogal na mu dem ba war a génn àdduna dafa jël caabi kaaba ga mu jox ko ku ñuy wax Abu Xirshaan moom tam mu ngi bokk ci giir Xudaa waye abu khirshad mi dañu wax ni sular la won mandikat la Wanti, wante jeflante ak mom ci muus bàyyi ko bam mandi mo xamni mandi na te amul sangara bu mu naan xusay ne ko mën na la jox sangara ndax sangara arama gul ndax bobu diine l'islam ñewugul mu ne ko am naa daan daam saanu sàngara bu ma la mën a jox waaye balaa ma la ko jox nag may jox caabi kaabe gi bàyyee ma te kum sulaar moom lépp lu mu am sàngaraa ko ko gënal mu jël caabi ji daal di koy jox xusay daal di jël daam saanu sàngara ba loolu moom moo tax xusay eh, daal di jot ca caabi ca la ko yàlla dimbalee mu dema dema dema dem ba yilif nag dëkk boobu di Makka ba mu ko yilifee ci doxalinam ak e ñaw gu ko yàlla may ci mu mën a diriger am réew ci la tabaxe benn assemblée bu rëy tuddee ko Daaru Nadwa moom Xusay moo ko njëkk a tabax waaye bi xusay wéyee euh, ñoom waa Quraysh mbir mi mujj na ci seen loxo jóge na ci giir xudaa waaye nag ñoom yëppe woo nen ndox ndax dëkk bi amatul ndox ndax sakk nañu sam-sam te xama xamuñu ban barab la nekk te ki ko sakkoon moo di amr bokkoon ca giir jurhum yàlla dogal ñu yitte woo ñoom itam gas ay teen waaye ci jamonoy Abdul Muttalib ndax Qusay ba mu wéyee Abdu Manaaf a ñëw ba Abdu Manaaf wéyee Hashim ñëw bi Hashim wéyee léegi nag Abdul Muttalib moo ñëw abdul muttalib bi mu ñëwee nag ndeke am na lu yàlla nam yàlla nam naa feeñal teen boobu ñuy wax dam-dam te ñu sakkoon ko ay siècle siècle nam na ko feeñal ci kilifa gi ñu wax abdul muttalib bi mu yilifee mag yàlla dogal mooma Abdul Muttalib mu tëdd ben guddi am lu ko yalla wan ci gént ndax bobu yalla bàyyi na len ñu ngay gor ñu ngay gas ñu ngay def lu ne pour rek gas yu mën deng servir dekk bi ndox mu doy dañu sonné nak ba ci ci la yalla am lu mu wan nak Abdul Muttalib mu daal di gént am lu wax ak moom ne ko gasal barab bu ñuy wax ba bi mu yeewoo ci gént gi xamul barab boobu fan la gasal Tayba te moom xamul fan mooy Tayba ah mu delluwaat tëdd ba mu nelawee itam ba mu nelawaatee la ko feeñu woon feeñuwaat ko ni ko gasal barab bu ñuy wax madunuuna mu yeewu xamul fan mooy madunuuna xanaa kon gént gi leeragul ba léegi mu tëddaat nelaw la ko feeñu woon feeñuwaat ko ni ko gasal zumazib mu yeewu xamul fan mooy zumazib te nelaw nag lan ko wax lako la feñ lako feñ won feñ wat ko ne ko gasal barra bañ ne ko gasal barra nak? ah xamna barab bu ñuy wax barra waaye kuñ ne gasal grande mosquée fofu la teenu zamzam nek gas ko te ñu la ban barab la kon defena ni grande mosquée limuy ray ray limuy ray ray yeb boko gas da nga son ci tane ñu ne la mungi ca taatu garab sàngam wala tabaarakallaahu mu ngi ca barab sàngam ci grande mosquée looloy tane ñu ne la gas ko rek nga war a dem pour gas jàkk ji yëpp bañ ne ko gasal barra itam xam na bar waaye xamagul nag fan la fa teen ba nekk waaye ba mu tëddaatee nelaw la la ko feeñu woon feeñuwaat ko nekk barra soo fa dee gas pour mën a xam fi zam-zam nekk mooy fa ñu tuur sébrit sa sébrit sa mooy bu ñu reyee gëléem yi fa ñu koy ñuy tuur bu ñu buttee mbàq yi fa ñu koy tuur sébrit si mooy sobe si fi ñu koy tuur wa damin ak fa ñuy reyee ba deret ja tuuru diggante boobu nga gas ko inda qariyati namlin ca wetu maanaam fa këru xorondom nga nekkee këru xorondoom nga itam am na baaxooñ boo xamante ni weexaayam ba dafa fis waaw baaxooñ daanaka ci bari dañuy ñuul waaye nag baaxoñ ba nga xamante ni weexaayam fis na fa mu samp sàllam di for foofa foofa gas ko foofu la zamzam nekk loolu ci gént la ko Abdul Muttalib jële fa la ñu doon reyee tabaarakallaahu seeni gëléem a ki seeni nag a ki seeni xar barab bañ ko doon reyee foofa ndekee foofa la zamzam nekk moo tax nag ñu ne ko ci gént na nga gas foofa sëbtit sa nekk ci kër xorondom gi ca wetu deret ja ci diggante sébrit sa ak deret ja ci wetu ci kër xorondom ga fa baaxoñ bu weex ba di fore foofa la zamzam nekk moo abdul mutalib daal di jóg jóg gu ànd ak pas-pas yenu pikkam ak peelam ne moom kat wax nen ko fi zamzam nekk daf ko war a gasi ba mu tàggoo waa makka ba yenu pikkam gaa yi dañ ne ko xamuloo barab bi mu ne xam naa ko wax leen ma ko ci gént ci la doxee waaxu lañu ko tegtaloon ci gént yépp gis na ko gis na sébris gis na deret ja gis na kër xorondom ga gis na itam baaxoñ bu weex ba fu muy fore mu ñëw baaxoñ ba naaw mu samp pikkam di gas booba benn doom rekk la am bu ñuy wax xaaris moko don jappelé jàppale ca gas ba pindu ismail bobu feñ motax gor góor gi ne ru'yaahu fi taybatin madnunatin wa dhumaadhimin wa darrata min u'jubati al alxakami لما استبان وذال الريب أما إلى إذالة الطم ذا جد بلا يتم من بين فرث ودم عند قرية النم لن عند عند قرية نمل عند نقر غراب بين العصم بموكما سي قسنك غورجيني كون لما بدا طي إسماعيل أصله بي بمي قس بنا خمينتني نبند بفين رام اشتراكا به الأقوام من حسد بكم ينك بمولن ليريني عبد المطلب مي xam na teen bi xam bu wér te gas na ba pind bi feeñ ba mu leer na ne lii mooy teenu zamzam foofa nag la xuloo jibi ñoom ñépp nag ñu ne ko ñoo koy bokk ismaila daal suñu maam la ko ñépp waaw ni mu nekkee sa maam noonu la nekkee suñu maam kon nag teen bi ndona la ci ñun ah coow li bari jàppal bàyyi yi bari wax ci bari ba nga xamante ni abdou muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamante ni jaaxle na mu laaj leen nag ne leen waaw ah man di wax dëgg yàlla bañu ma ko sax bokk ak yéen waaye nag ndigal gi ma ci am moom ngeen ci amul léegi nag dama leen di laaj di leen ñaan ngeen jéem a seet ah, xamanteni dana leen doy pour mu atteñu kan moo war a moom teen bi ñu joxoñ ko benn kaahina ne ko am na benn labbi benn benn buxaaba bu nekk ci barab sàngam suñu fa demee danañu atte te barab ba sori lool ñu takk seeni warwaay takk seeni fas ñu am gëléem takk seeni gëléem ñu war a départ nag pour wara séti nak dénga mam nga e bu xaaba bobu pour mu àtte ñu dawal seeni gawar ba ñu démé ba nga xamanteni sonu nañu nanu seen ndox jeexna amatu ñu dara lu ñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina na ñu joggé na lañu la ci ndox jeexna ñi ci jotone am ndox sax ci giir quraish lanu yor bariwul wul motax bañ leen ci ñaanee dañu bañ ne dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex su ko nak e eh, ngeen toskare ñu toskare bari léegi nak abdul Muttalib ne leen def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdou mutalib ne leen kon li fi seus modi ne nañu gas kenn ku ci nekk na gas bàmmeelam tëdd ca xaar dee su fekkente ne kenn dee na ci ñun ña deewul suul ko waaw su ko defee ku njëkk dee sa morom rek sa morom sul ku ñëk sul, sa morom rek sa morom sul lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé kay mujjé dé nag xamna naa na fay jaar rek sul ko ñom ñëpp ñu tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna na sonu nañu té fañu jëm sorina ha fofu nak nag lañu gas seeni bàmmeel da di tëdd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat rombaat ci xelu abdul muttalib mu daal di jóg ne leen ñun daal ay jaami yàlla leen te waruñoo ñàkk yaakaar ci suñu borom te ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewalu yàlla yaatu na ba leen ko waxee nag ci leen ni ko ah kon nag ñu fabu ca leen faboo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu ba ñu jógee ba fabu ba takkaat seeni géléem ba war ñoom ñépp ñu war abdul mutalib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bi rëppatalee géléemam ci tànku géléemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma balle nag ah nit ñëpp di mu yuuxu nit ñi ne leen taxaw leen ndox mu neex a ngi nii kët ci sama suufu ci sama suufu tànki gawar gi ci la balle kon ñëw leen ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam doon balle ah nit ña wàññeeku loolu di kéemtaan gu rëy loolu di kéemtaan gu rëy ci ñoom ñoom ñëpp ñu dal di naan ña cay sangu-sangu ña cay duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah foofu nag ba ñu naree continuer nag pour dem buxaaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul mutallib ndox mi feeñ ci sa tànki gawar mooy binyu bi ñu waaw tribunal bi ñu àtte daal mooy ndox mi feeñ ci sa tànku gawar lii rek wane na ne yow yaa jagoo moom zamzam kon nag ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu àndaat ak yow wàññeeku zamzam daal yaa ko moom yaag say doom ak say sët loolu la góor gi wax ne nabul furaati لدى مركوبه حكم من motax bi mu delu mom abdul mutallib commencé na di bi te modi zamzam te ci pind ba rek la yemoon ba mu gassé yemna ci ñaari kewel yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kewel yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu génné ñaari kewel yi rek xolo jibat waaw doomu adama moom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko bind moo fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu adama moo tax la ñu gisoon ca kéemtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ndox rek la gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel yi ya di kewelu jama di kewelu or pur alal jooju nag tax na beneen xuloo jibaat na ñu ne ko nag kewel yi ñoo koy bokk waaw mën nañ laa bàyyee teen bi waaye kewel yi nag ñoo koy mu waat gas gis te itam ay mbubbi koŋ mbubbi koŋ mooy mbubb yooyu nga xam e moom la xarekat yi daan xeexe te itam nekkoon mbubb yu cher te am valeur mu gisaat itam ay jasi, nee e kéwél yooyu mu gis ak jaasi yooyu ak mbubb koŋ yooyu na benn bu wax am ñu am na ñu ne buur bu ñuy wax saabuur moom moo ko jox kado kaaba gi ndax buur yi dañ daan indi seen kado yu am solo daan ko jox mu di ay addiye ñu koy jox kaaba gi nag amru ba muy daw di génn màkka valeur yooyu la génnee ci kaaba gi iñaane ko waa màkka daal di koy la suul ci suulaale ci biir teen bi ba pare nag masque teen bi ba kenn xamewu ko ah loolu nag indi coow lu rëy jàppal bàyyil tabarkàlla ba rayante nar a am comme Abdul Muttalib borom jikko la te ku baax la mu ne jaru ko ay mbokki kese waruñu rayante léegi nanu seet mu ne kon bokkoon na ci suñu aada bu ñu masaana juunoo ci kaddu ci mbir mu ñu war dañu koy bantale ku ne la ci sa rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indiwaat ñaari bant pour man yéen itam ngeen indi ñaari bant pour yéen mu mel kon séddoo bi ñett a koy def kaaba gi dafa war am cërëm Abdul Muttalib ci boppam am cërëm waa Màkka ci boppam am seen cër noonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yeneen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yeneen ñaari bant pour waa Màkka ñu di dem nag ci benn xërëm bu ñuy wax hubal xërëm boobu nag mu nga nekk ci biir kaaba ga am na benn bu fa nekk ci biir kaaba gi foofu la xërëm bu mag ñuy wax hubal la nekk ah ñu tirage nag seet kenn ku ci nekk la la ci yàlla di sédd boobu mbokk yi ngeen يننت بي جدوغل نخ كي ني وخ عبد المطلب مو جور كي وري جور يننت بي تي مودي عبد الله تي بوبا صاح عبد الله جدوغل كون جامونو جاهليه لا وون جامونو رير لا وون مو تاخون ني ديم سي خرم بوبو pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu ñu sen tirage kaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya ah leneen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jaasi ya abdul mutalib moko gagné ñom wa waa amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jeggen ni ca ngas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak waye Abdul Muttalib, ci ngoram ak mbaaxam tax na la ka ga mom jëlu ci dara xam nga léeg sax nga gis kuy woote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waaye nak fokk mu wut ci ru bopam am lo dal dana ko ca rocci dugal ko ci biir këram waaye abdul muttalib boobu lislaam ñëwagul waaye bu njëkk ba mag ñi ngor rek lañu amoon muy seen diine ngoram mayu ko woon mukk kéwél googu nga xamant ñaari kéwél yooyu nga xamante ni kaaba gaa ko gañe mu koy jël di ci am lum ci rocc wala déet dafa jël ñaari kéwél ya ca la defaree buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam ah loolu itam nekk maandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo mbiru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla loolu la góor gi wax ni ra'a alghadalayni بعد الحفر من ذهب وأدرعا وسيوفا في اختصامهم من رأى جسنا الغذالين نياري كويل بعد الحفر تغناو بمو غاسي بنوبي كويل يوينك من ذهب ننكبلو ورسل وأدرو عن جسنا فيتم أي مبكم وسيوفا أكجاسي وأي في اختصامهم ينك نيوم ومك جسن ترخلو تخشو على الجوجو فين وكانت نكون ساسان بور بني وخ ساسان دي بور فرس أو سابور ولا بور بني وخ سابور مهديها موكو جخون كادو li kaabatillaahi ñeel kaaba yàlla ga màgg na allahu yàlla dul karami kadi boromu tedd nga waaye abdul muttalib ca mbaax ga ak ngor ga fa qaala mu ne leen ji oo indi leen bi aqdaaxin ci ay bant ka aadatina comme nañu ko baaxoon a def fa man képp koo xam ne xarajat dal na lahu di ko ñeel moom bant ba یخوذ مجل چرم ولم یوضمی تده فوکو گتی ده فوکو تونی دیسنانی اندیلین نیاری بند لیل بیتی پر نگی زمه سنانی توپنگین اندی نیاری بند لی پر من و اندی نیاری بند لکن پرین ایضا بطی سکا دفعه فنه اچی نیو دم نک نیو دکه اکبره صنمی خرم بگنا مکت مودی هبال وایه به نیو حاذت غنينا الغذالي نياري كيوليا بيت الله نيغو يالا باتي موي كابا كي كابا غا غني نياري كيوليا ثم تما بقى لدسنك دي كير ييب لي شيبتا الحمد موكو موم تي مودي عبد المطلب من دون اشتراكه مي تي لودول نيوم ني تي بوك دي تام دارا واصلح الباب تي لا واصلح تي لا يوينال الباب بونتو كابا baabal bayti te moo di buntu néegu yàlla ba zayyanahu rafetal na ko bi dalika dahabi ci yooyule or almadkuuri yadi ñu tudd zahimu mi te moo di borom yitte nag ci taxaw pour liggéey kaaba gi ci alal jooju bañ cee dugal benn tappale waaye mbir mi dal abdul muttalib te muy kilifak màkka tiis na lu tax li muy nekk nekk kilifa am na lu ko manqué moo di ne amul ay taaw yu tekki benn doom rekk la am mu di xaaris foofu na xolam jeex kii ni waa màkk jëflanteek moom ak niñ ko sonole mu daldi di ne man de maa ngi ñaan yàlla su ma mayee fukki bant te moo di fukki doom suñu demee ba màgg danaa ci ren di kenn ca kaaba ga pour jaamoo ko waaye loolu mu ñaanoon yàlla yàlla xëy na rekk may ko ko may na ko fukki doom yooyu ba mu ko may fukki doom yooyu nag lu taxoon mu doon ñaan yàlla fukki doom yi pour ni ko waan màkka noonoo ak ni ñu ko bañe ak itam liggéey bi nga xamante ni bëgg na ko taxawee ci wàllu kaaba gi ak liggéeyu këram fukki doom yooyu mën ko cee jàppale loolu rek moo doon sabab ci mu ñaan yàlla loolu waaye yàlla xëy na may ko fukki doom yooyu doom yi nga xamante ni moom la ko yàlla mayoon nag wax ne ni fukki doom yu góor lanu ak juróom benn doom yu jigéen mayoon na ko doom bu ñuy wax abbas may na ko itam doom bu ñuy wax may na ko doom bu ñuy wax abdallah mi jur sayduna muhammad may na ko doom bu ñuy wax aba taalib moo jur ali ibnu abi taalib abu taalib nag turam dëgg-dëgg abdu manaaf lan koy wax may na ko doom ju ñuy wax zubayr may na ko doom ju ñuy wax xaaris may na ko doom ju ñuy wax xajla may na ko doom ju ñuy wax muqawwin muqawwim may na ko doom ju ñuy wax diraar may na ko doom ju ñu wax aba lahab moom la yàlla xas ci tabbat yada abi lahabin abu lahab turam dëgg-dëgg mooy abdul uzza ñooñu ñoo di góor ñi fukk lañu bu dee jigéen ñi may na ko doom ju jigéen ju ñuy wax safiya may na ko doom ju jigéen ju ñuy wax ummu hakim ñu koy dàkkantalee al ñu koy dàkkantalee bayda may na ko doom ju jigéen ju ñu wax Atika ak ku ñuy wax Umayma ak ku ñuy wax Arwa ak ku ñuy wax Barra mu mel ni kon da nga ciy daal di gisee ne góor gi tabaarakallaahu ñaan googu mu ñaanoon yàlla ak nidar googu yàlla matal na ko waaye ñu ne Abbas yaayam mu ngi tuddoon la moom Abbas ak Diraar seen yaay mu ngi tudd la ñu ni bu dee yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl moom ñu ngi ko daan dàkkantalee Gaydaq ndax li mu bëri ni mu nekke woon jigéen ju bari yiw kon jigéen la woon joo xam ne jigéen ju bari barke la woon wante Safiya moom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey leen ñoom ñoo bokk ndey ak baay moom Safiya mi jigéen la joo xam ne defe naa ne képp ku suivre bi ñuy waxtaan ci xare Uhud bi ñu reyee Hamza moom la yonent bi waxoon ne bu xabaar bi gaaw a yegg ci moom ndax jigéenam la te itam su mbir mi yeggee ci moom dana ko metti dana tiis ci moom moom Safiya jigéen ju jàmbaare la woon exemple la sax ci wàllu yar xamna dunia du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Sofia budi yaayu Abdallah mi jur Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ño bokk ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ne itam mboolem jigéen ñi ñu fi lim di ummu xakim ñu gën ko xam ci bayda ak aatika ak umayma ak arwa ak barra ñii itam ñook abdalaay ñoo bokk ndey ak baay ndax soxna see ñuy wax fatima moo leen jur bu dee xaaris moom ndeyam mu ngi tudd samra samra bintu jundub bu dee abu lahab nag di saay-saay bu bon bi moom abu lahab mi ndeyam mu ngi tudd lubna moom daanaka kenn la ci ndeyam moom la yàlla xas ci tabat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maaluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokk kon ñu gis ne lu Hmm, lu waay di ñaan yàlla rek na nekk lu baax ndax léeg-léeg nga ñaan yàlla rek yàlla nangu ñaan ga nangu na ñaanu abdul muttalib ci fukki doom yooyu léegi nag li fi ne abdul muttalib ah li mu nisaroon yàlla indi ndax dana rey wala du rey kon ñu bàyyi leen ak technicien bi tuuti dellu ملني nii loolu la góor ناذر نذر إذ هم اجتمعوا على أذيته من شدة الأضم فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر idhum ba nga xamanteni ni ñoom waa makka ijtamau dajaloo nanu kompaloo nanu ala adiyatihi ci na ko lor min shiddati l adami ngir taruk noone bañ ngiñ ko bañ rek tax na ñuy kompaloo saa su ne di ko sonnal ci la ni pour yàlla may ko fukki doom waaye am la mu sàkk min mawlaawu ci boromam la mu am lan la asharata abnain fukki doom yu góor يعينونه يو خامني دا نيو كو ديمبلي في القتل تي جانك تي جامار لوك وا مكه تي تيون بي نيو كاي تك والخدمي اك لي ميرو يتم ليغي كابا نينا مو ملني دا فا خاوانا نيغليجي مير مام عبد المطلب نخ راي دوم يومبل نمو دالي وون seydina ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yàlla mayee doom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi ah dafa mel kon fami bi njig jigéen lanu ndax ibrahima mi maam nizaron, na ah abdul mutalib itam nizaratna, na kenn nak ci nekk nag sa mbir mbir mu yéeme la ndax bala da nga lu feniti ba nga xamante ni yàlla dogal na mu xaw a yéexe mbir mi bu tëddee rek dégg baat bu koy wax naan ko la nga diggante woon ak sa borom de mataluloo ko bis bu njëkk ba ba ko baat boobu feeñoo ci gént dafa xëy neneen ah daal di rey xar gàmmukat yi danañu koy wax ca ñaareelu fan ba la ko feeñu woon feeñuwaat ko mu xëyaat suba rey béy neneen ca ñetteelu fan ba ah la ko feeñu woon ci gént feeñuwaat ko mu xëy rey ganaar ah kon de na ni defe na sarax dana tax bakkanu abdoulaye rëcc te kat abdoulaye la war a li waaye ba mu tëddaatee gént nag la mu gis moom tax na daf ne ñokket ne daal li fi sës moo di ne naa rey kiñ ma reyloo te moo di naa matal sama tabarkalla Misar bi moo tax góor gi ne waqat takarara baamtu na baadan nay li gannaaw ba ko yàlla mayee ba mu am doom yooyu lan moo baamtu ru'yatu man gintu. dégg nga jëmm joo xam ne yaquulu mu ngi koy wax naan ko aw fi matalal la nga xam ne ahadta dégg nga wala réewoon wala réewoon te woon nga ko yaag sa boroom mi te nga taxaw nag temm taxaw bu ànd ak dogu pour matal lii nga diggante woon ak sa borom te moo di ne boo amee fukki doom danga ci rey kenn jaamoo ko ko nee na nag bëggante ga baamtoo ci moom bu tëddee rek dégg baat bi naan ko matalal li nga diggante woon ak sa boroom nee na loolu tax na faxtam ma mu tiit faxtam ma mu jàq xaman njàqare shadidan bu metti jaamian muy aji dajale bihim ca doom ya musaahiman dégg nga mu bantale leen nag waaye bu leen bantalee daal def tirage xaarijan bant ba dana génn dal bil waalidil kërami neena na ca ndey ci wayjuru aji tedd ja kan moy wayjuru aji tedd ji te moy abdallah mom moo jur aji tedd ji kan moy aji tedd ji modi muhammad fuñu defé tiraj tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi di dal ci abdallah buñu jëlé jëlee wat buñu génné rek muy abdallah moom dal mel ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yoon dal kenen ci doom yi kudul abdalaay moom abdul mutalib bu lay rey sax bu bu buy def mbir ma du hésité ndax ni mu bëggee woon abdalaay bëggewu ko benn doom bëggewu ko abu talib du abbas du zubayru du Ken. ni mu bëggee woon abdalaay mbëggeel gu jéggi dayo la parce que boobu leeru sayyiduna muhammad moo nekk ci moom foofu nag la ne mbir mi daal du mbir mu yomb man daal ni ma ko jorte ak ni mu doone wute na kon nag li fi sës mooy naa dem ci xërëm boobu ñuy wax isaaf ak naaila ñu jéem a seet nag buñ fay def bu mu ñëwee ca xërëm boobu te moo di isaaf ak naaila nee na mu namm matal nag loolu mu giñoon te nidaroon ko ci digganteem ak boroomam te moo di ba rendi kenn ci doomam yooyu te doom ja di abdalay moo tax góor gi ne wa am dëtmal na ndax wa isaafin ci wàllu isaaf xërëm la su ma naa ilatin topp xërëm bu ñuy wax naa ila diggante isaaf ak naa ila fa la zamzam nekk ci jamono booba lu mu namoon murida ifa idaka nadri muy aji namm matal loolu leen nidar wal qasami ak ngiñ loolu waaye ba mu demee ba nga xamante ni dong ci teg moo ci des ndax xam na ne abdoulaye lañu war a rey takk na ko bam ne ngodd ba nga xamante ni dong ci des foofu nag la xol waa màkk yépp jooy ci ne gone gii de bu ñu ko reyee du baax ñu ne ko lii dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci màkk te bis boo ko dana fi nekk aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray te bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñëw sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu buxaaba suñ fa démé mu sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkalla préparé tukki war seeni gelem war a nak dekk bobu ñi wax khaybar jëm gisani kat bobu bi ñu gisani kat bi recevoir na len ñu war waxtaan ba ñu abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp gisani kat bi mu ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekkente ni namm ngeen ay jot nit ku ñu nar a rey lu ngeen daan joxe comme diya ñu ne ko xanaa fukki giléem mu ne kon kay dellu leen su ngeen delloo ngeen jël ki ngeen waroon a rey te moo di Abdoulaye ngeen teg ko fële su ko defee ngeen jël fukki giléem teg fële su ko defee ngeen bantale saa bu bant bi génnee dal ci abdalaay ngeen dolli fukki géléem bañu ko dee def di ko def di ko def mooy ne bu ngeen ko defee ban bu ngeen ko defee nag ba ba ngeen di gis nag bant bi di dal ci géléem ya bu boobaa ngeen xam ne géléem yooyu ngeen war a rendi mooy tolloog sarax bi ngeen war a génneel abdalaay pour bakkanam mucc kon nga xam ne bu doon ne milliards yi géléem la itam milliards yi géléem la ñuy rey bude dee ni itam tabarkal la ñaar fukki gëléem la ñaar fukki gëléem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkente bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len dolli par fuk wa su demee nak ba dal ci gëléem yi nak ngeen xamni lolu ngeen wara ray pour mu jot bakkanu abdallah mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu dañu wuté قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجكبي من يلي فري قالوه بنيارل بي وخلي فري ناخ ودمي سورة الضحى يالاني وحني والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلى فوفو mbañeel lay firi motax tax mu ne temodi ay nonam te modi wa mak qaluhu ñu nga abdul muttalib la tafal bul def za ci ray gi nga na ray abdullah abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbaax fi fihra ci gir quraish mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon yaa ko fi indi mu kon nu ñuy def ñu ne nam namdi nu wéy li xaybara jëm dëkk bobu ñi wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidaa maana ya shayba nam namdi nu wéy li xaybara jëm khaybar yaa shaybata yow shayba fiiha nekk na ca dëkk boobu ñuy wax mustamirina ñuy way nam ma jëfe nag bi ma xaalat ca lam leen wax moom ndaw sa ci gisaane ga jawi sala mi ñuy boroomu jébbalu ci waxam xaalat ndaw si ne leen waaw fakkam diyatun kuntum tëdduuna biha fakkam diyatun ñaata diya kuntum ngeen nekkoon tëdduuna daan ko daan diyaal diyaale biha ci moom xaalu ñu ne ko xaalu laha ñu ne ko achatul abal fukki gëléem fukki kele min naamin ci juuf moom leen daan joxe qalat ndaw qalat lahum ndaw si ne lil ahli kon dellu leen ca mbokk ya min ajalin ci lu gaaw a gaaw wa su ko ngeen bantale ko nag ak gëléem ya wa ngeen bantale abdalaay biha ak gëléem ya tardaw su ko defee da ngeen d' da ngeen nangu ci nee na mu ne leen innal qida inil qidaaxu bu fekkente ni bant ya xarajat dal na ala mahbubikum ci seen soppe bii di abdalaay ngeen xam ni bëggu leen koo rey ziidoo na ngeen dolli fa ziidoo topp ngeen dolli wa ziidoo topp ngeen dolli duuna ma sa ami ci dudul benn yokkat feeg bant baa ngi dal abdalaay di leen dolli rek fukk par fukk fukk par fukk xata ida ma alayha sahmu حتى إذا ما ببو خمنتني قد خرجت جننا السهم دينغ بنت با بنت تيراج بدلنا عليها تي جليم يه بو بابا نك فلتنحروها نجن لك جليم يه نجن رنديكو أخي إن الله ويرني نكي يالك ذو الكرمي برومك مباخلا برومك تدنغل موم يالك waye li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul benn sago mu ngay ñaan yàlla rek naan yàlla way way yàlla bu yàlla boo ma nattoo may rendi sama doom ji bëgg naa ko lool su ma sañoon daal du dee mu nga naan laa ilaha illallah mu ngay tudd yàlla rek lu tax ndax rek yàlla musal doomam boobu di abdalaay ndax boobu leeruk sayiduna muhammad gi nekk ci moom taxanu ku ko ji sopp ko ndekki abdul muttalib lim koy sopp sopp yépp waa makka ko ko gën a sopp waaw moo gi ne walam yadal daaciyan mawlaahu mubtahilan aw faraja allahu ma yaxshaahu min gumami walam yadal dañul daaciyan di ñaan yàll di daaciyan di ñaan mawlaahu boroomam mubtahilan mbir mu aji dégg nga tudd allah ak laa ilaha illa allah aw farraja ba wuññi sax allahu yalla ma yakhshahu lakum ko min ghumami ci njàqare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gëléem yi àggi ci temeri gelem bu ñu tirager rek tabarkàlla bant badal Abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tiirewaat bant bi dal ci abdoulaye ñu dolli muy ñeen fukki gëléem ñu tiirewaat bant bi dal ci abdoulaye ñu dolli muy juróom fukki gëléem ñu koy def di ko def di ko def di ko def tabarkalla ba bi mu àggee ci li mu téeméer ci la nag tirage ba nag sooga dal nag ci gëléem ya abdul mutalib ne alhamdulillah comme dal na ci gëléem yi alhamdulillah sama doom ji mucc na waa màkk yépp ne alhamdulillah ñu loj gëléem yooyu nag géléem yooyu lañu rendi bi ñu ko rendee ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu àll yi maanaam gëléem yi yépp téeméeri géléem yooyu waa màkk mënuñu ko woon dunde ba mu jeex lii dañu ko bàyyee waa dëkk bi néew ji doole yeeg miskin yi lekk ci tabaarkàlla ku ne dagg ci ndawal yóbbu sa kër la ca des ñu sànni ko ci àll ba bukki yeeg segg yeeg yépp tabaarkàlla lekk ci ñu ne nag gëléem yooyu jot bakkanu abdullahi moo jotaale bakkanu képp ku di jullit ndax bu abdullahi génnoon àdduna kon seydina muhammad du feeñ te kon seydina muhammad bu feeñul kon àdduna bi àdduna lëndëm rek lay nekk te loolu mënul nekk sax kon tabarakallahu mbokk yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko daan woowee eh, maanaam yow sëtu ñaar waroon a rendi ñaan ñu ñu waroon a rendi ñan lanu moo di ismail ak abdallah mi ko jur ndax ismail maam la ci sayidna muhammad abdallah itam bàyyi la ci sayidna muhammad te ñoom ñaar ñëpp daanaka seen histoire benn la ndax ku ci nekk sa bàyyi dafa nidaroon pour boo juddoo mu rendi la jaamoo ko yàlla moo tax góor gi ne لما إلى المئة الأجمال قد وصلت حل القداح عليها فعل محتكم من بعد ضرب ثلاثا كان ناحرها مسوي الناس والأوحاش من لحم لم تعد لم تعد تلك العشار الكومة إن فداءه فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي ممن يكون بكي يننتبه صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورق مملن دان ويه يبنى الذبيحين بأن كو كو مسنا كو كو ويه فكو كو ميسي دولي مانجيجي منكو يبنى الذبيحين يوبرو منياري مام ينجو ورون رندي maa ngi lay ñaan pour nga jox ma sama wàll ci li ngay séddale mu mel ni kon mbokk yi ci wàllu gàttal loolu moo di histoire tabarakallahu abdul muttalib ci gas bi mu doon gas zamzam te yàlla won ko ko ci gént ak itam la mu nisaroon ci fukki doomam yooyu doon ko dimbali tabarakallahu ci wàllu tënk euh, loolu leen ci jot a indi kon